عليه وآله الكرام أفضل وأزكى صلوات ربي وسلامات الأبدية mbokk yi fi daje yépp maa ngi leen di nuyu encore une fois gannaaw bu ma leen nuyu wat ci kanam xalis bi di leen siyaare bu baax a baax di leen wax ni wax dëgg yàlla sunu xel dal na li xalis bi wax ku ko dégg rek sa jaaxle day dëñ mu des nag ñu ñaan yàlla may ñu ñu gëm ko xam ne ki doon wax waxuloon yàllay wax parce que alquran def ne wa ma tashauna illa an yasha allah nekku ne li ngeen ay wax yéen la neex ngeen da koy wax yàlla la neex ngeen da ngeen koy wax bu ko neexul bu ngeen ko wax kon yal na yàlla ma ñu kàttanal dégg ak topp bi jaahi rasulillah maa ngi nuyu ñi fi teew yëpp ay sang ñoo fi nekk ay sang doomu sang waaw ñoo fi daje ci palaas ay ambassadeur kenn ku ne ci kër gu rëy nga bàyyee ko ñëw fii kon su ma limee damay juum Cheikh Abdallah Yaasin am na lu mu ci jàngat dañ koy bàyyi ca ci jàngat ak Abdou Latif lim leen lim leen leeralal ci tànt bi ak taxawaay yi ci am yépp dégg nañ ko kontaan nañ aussi dégg nañ ci trop na mbég moo xam ne ëpp na xel réccu lu ci am na réccu bi ci am benn lay doon mu yéex yéex gee taxawee mais réccu jëf lu ci am waaye dañu wax ne suñ jógoon gaaw ko def ndax li mu ne lii ni mu seddee suñu xol te gis nga sang yi toog te suñu rakk yi bu seen xel seddee rek yàlla xolam sedd na yonent bi xolam sedd na Cheikh Mati yam sedd na seen bay xolam sedd man xam naa si dara xale bi wax na ci lu bari bari fa tabaraka sal xaalixiin li ci sëñ Abdoulaye Ndaw wax Abdoulaye dama ko jox cëru baayam bay alaaj Eliou Ndaw sunu sëriñ la baayam mooy sunu sëriñu papa ba mooy wéy da da am ñim jëlee li mu am baayam lañ di ko tudd ci Seydi Alaaji Mor Diané nit ku bitil karaama kii wax na ko léegi ah, Mohamed Abdou Wahab Abdallah an Seyxina Ali ñu ko jëlee ci alaaji Aliou Ndaw wa Seyxi Mahmoud Diar ak Seydi Alaaji Mohamad Diané ñu kontaan ci torop nag gis nga ko mel noonu bu la yaree boo yaruwul tooñ ay baaw na bu la yaree boo yaruwul tooñ nit bind rëyee nit bind mën a yàggee ngay bind wax li nga am ci yàlla foo ko jëlee foofa kañaan amu fa rëy amu fa foofa kañaan amu fa rëy amu fa yow wane nga ne taalibe nga ba bi ngay bind taalibe nga avec tous yàlla may la ko taalibe kon ñi ngi koy gërëm ci boobu yar da ci fekk yar boobu ci njabootam yar boobu fekk nañ ko si njabootu alaaj baabu fekk nañ man mii maa si gën yara de ko ñun ñëpp ay sang lañu ay kilifa lañu ñu yaru lañu yal na yàlla yokk yëpp te dara jeenante bi man nag dama kera ba mu faatoo ba mu nopp ba mu wàccee liggéey ñu denc ko bëccëg ba ñuy waxtaan ci néeg bii man ñëpp may jàng wasiya bi maa ko bindoon ci kanam yàlla ak yonent Cheikh Ahmad Tidiane te noonu la ma ko waxoon ak yaa jaal Safiyatu ba ma koy jàng dama waxoon la ma waxoon lay fee dellu bésu tey bii góob ma alal góob ma xam-xam man yar laa gëm ku yaru rek yaa moom moom ku yaruwul amoo ca man dara yar gi ma gis ci yéen nag moo tax ngeen moom ma ba abadan li ko li bi wax ni mu ko waxee sax raw na ko. lu gën ku ma ci ku ma ci bale woon plus ma bale ko yàlla xam na ko ndax dama ko gis ci yàlla sax te yàlla yàgg kii toog nit ku baax la yàlla xam na ko ku bëgg ku bëgg ku bëgg lu baax la muy sëñ Abdoulaye Ndaw ibnu Alassane Liou Ndaw bàyyam daf ko bëgg bëgg boo xam ne xaas la woon ndax li mu ko tuddee Alaaji Abdoulaye Niass ma alaaj Abdoulaye Niass lañ ko tuddee kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wax ne ki fi ñu toog ak yow mi ngi mel ni tey yaa fi représenté njabootu alaaj li ak ñi ko féete suuf yëpp tey rek Moustapha Diaw jërëjëf jàng yi neex na wuy yi neex na tegu na ci kaw yoon dangaa bett xale yi dañ ko dañ dañ ko waajal tant bii yonentu yàlla mooy moo ko moom bu fi daw dawkat nekkoon bu buy bawee Mouhamed Mouhamed dañ ko mu ñëw ñu jox ko mu wax dawkat bu fi nekkoon buy bëw naan Mouhamed Mouhamed daañu fexe ba mu dugg ci tànt bi ñu ne ko waxal tànt bi amul sant amul kër amul sant. koy wër lu ne da koy wëri dafa naa loolu mooy dëkk nit soo ko bëggee dootoo gis ci àdduna bi ku ko bëgg nga koy jox noonu maa ngay seet ak moom man de rus naa rus naa rus naa man ñi tooñ na ma tooñu metti xëy na sax tooñu ma man maa ko def tooñ ndax sama xool bu xat ci sa tooñ la mais dama dama laaj ci lu mu doon ñu ne ma julli la ma kon dal na ko dootuma topanti du ma toppante julli waxuma tijaan waxuma xaalili waxuma murid dama ne gënaa julli rek dal na ko de man sama xar sama xar xol la mais mu dina nek sama xarit mu dina nek sama soppe bo xamne soppe bu dëgër la domam bi mu jema maa ko may mako may yalla xamna kon su ko defee loolu ci le gor ci bëgg jabot yi yaru ci moy bëgg yonent bi bëgg jaamu yalla yi gor gi daf doon am kersa ci waxtaanam parce que dafa doon jabot ho nit ñi ba ñëw nga tagg sa sëriñ ñi rafatul ndax ki nga wo mu ñëw am sëriñ mu neegu sëriñ dem ut ci la ngay tagg sa sëriñ koku waxin bu ñu wara sétat ci jamono la ba tax góor gi dafa dafa problème di waxtaan ci Cheikh Mate Diagne Sary ba ma laaj ko ko ma ne ko yow daal ban papa def ma jaaxal dama gis doo wax ci Cheikh Tidiane dara te daal macha allah mu ne ma xanaa déggoo Babacar li ma wax fa saw ko saati yii fii sékki ba fii àll bi xam kaa ne askan a ne kulli awqaat mu ne koo xam ne fu ma toll maa ngi màndi ci moom naka lay waxee ci moom waaw waaw koo xam ne fu ma maa ngi màndi ci moom naka lay waxee ci moom. te def ko fàtte yow yaa ko bindlu fa sow ko saat yi soog ko jëm Cheikh Matiane Sarif fi sirim ci lu a ah, ci lu làqu ba fi àll bi ak lu feeñ xat kaa na nekk na askaran yi dama mandil ma sàngara ci kullil aw xaati mu ne a waxuma guddi waxuma bëccëg ci kullil aw xaati laa wax ci kullil aw xaati rek sopp ko daf nay mandilo moo tax mënuma wax ci moom mais <clears throat> modeste tam moom góor ak ak bëggam jaamu yàlla yi taxoon na ba yonent bi ñëpp bokkoo ci la daan ci la daan ëppale waxam ci la daan ëppale waxam kon su ko defee loolu ba tey dana ñuy del ci jamono moom sax li ma koy tudd bariwul ba am na ñu ma koy wax dal waxtaan waxtaan ci sa papa lii maa ko bind ci moom fajara ko suba teel jàngal ko ko mu jël loxoom yu tedd ya da fomp di naan foppal naa rongoñ bépp doom boobu ko mos a def baxal naa bépp doom boobu jur ba yombal xiyam taxaw ndax buy bii kontaan naa ci keroog fekk fekk Seyd Mouhamed Mahdi mu ngi ngoro ca Odar mu ne tey mënuñ bokk yenn ci dëkk bi dama leen a jox bii ak lépp lu ci aju yaag alaa si Modou Lamine ngeen dem Odar yenn ji fa tey mënumaa yendal yoon ndax bëgg boobu am taxa si juróomi yoon laa ko ci am na ci foo dama ne ko dama ne fa yaa ahlal bu wuuti bil kawaakib fa haada huwa shamsuna li ardi yow mi bëgg xam-xamu nu ilmu nujuum xam-xamu biddiw yow mi ko soxla kaay jant baa ngi nii alaaji baabu ndaw boobu loolu laa ko ci wax kaay jant baa ngi nii beneen bi ma ne فيا أهل فيا أهل الإرادة بافتتاحهم فهذا يبدأ كل العلوم يوم يبقى فتح وبقى أبيكو فهذا كيل أرى البابر يبدأ كل العلوم تابي بيب خم خم لا فهذا يبدأ كل العلوم موي تابي بيب خم خم ما نه دي بمرك فيا أهل الإرادة بالدماني يوم يبقى درو أورس الدرو يوم يبقى جماعة يوم يبقى شغلة kaay kaay faxataa faxataa kii njaaw siri te yàlla xamaloon isma la sa la kabara boo xam ne moo gën tu moo gën urus moo gën jamaa ma ne fa yaa axla ilaada bi tijaan yow mi bëgg Cheikh Ahmad Tidiane Cherif kaay baxasa baxasa wasiratu Cheikh yi ci yoxu si yàlla gi moo wax ne fi saalika waxta xarib Cheikh Ahmaduna wa huwa yaarifuni ba dara amul aadama amul dara amul نحن لا شك لا تكفي سيد وقت سابتو سابتو بيا من دون مريا من تبوا بجمعنا لا إلي سمو الله اقتلوا شعب تيرتا دونك من ما باوك كيما وقت مملي نكا يمنا نكا نكا لا كوي من نكا وقتان منو مكو مي تكنا وقنا دك بس كده ما هو كي نكو وجيكو تسمى بلي كفو جوحي اتجام لهو جوحي مولي لهو wala xaadir wala laaya lépp a fi day kon yàlla yàlla faj aajo yi ñëpp këri diine yëpp ñu ngi fi ki faa won tuubaa ñëpp ak bi ci kër gi alhamdulilah rabbil alamin ñaseen surtout ñaseen ma alaj abdoulaye ñas gis nga man sama sama ku sës ci man rek dama la yërëm sëñ Ousmane Ñas doomu Cheikh Omar Umay Cheikh Umay ma alaaji Sëtu Ñas mi ngi ci place bi ñu koy nuyu daan ko dox cëram legi de ko wax ne ko tafatal place bi san place la yéen ñëpp ko rawati na nga yow tawakkal sana xaalixiin yeenante bi moko mo yeenante bi nak dafa don suba te waxtan tay tey damay fàttali jigéen ñi seen mbokk muy ne khadija damay toog ba mu yàggat sama adduna yëpp daf may yéem te Xadija bint Xuwaylid waaw Xadija jigéen bu yéem la parce que li mu liggéey Xadijatu li mu liggéey sang yi ja sang yi jigéen ñi yéen ñu for ngeen ama góor ñi xam nañ ko wala xamuñu ko yéen ñi yàlla dénk arbaaxu rijaal li ko yàlla dégg ngeen amee ko neuf mois juróom-ñeenti weer ngeen koy ëmb góor ma kese Nourou Sarta nga ma xam leen musulman ñax mi ju jumaanu xesaa bàyyi xel yàlla may na leen bu baax kon na ngeen góorgóorlu bu baax de bàyyi xel li leen yàlla may. may ak yàlla boo ko santee rek mu barkeel ko. mu ne may yàlla boo ko santee rek mu dooli la. kon dee sant yàlla. kon deleen sant yàlla. yéen góor ñi ak jigéen ñi. yéen góor ñi ak jigéen ñi. rawatina jigéen ñi. rawatina jigéen ñi. fii ku baax ku fi jigéen jurul amul. fii ku baax ku fi jigéen jurul amul. ki ci gën yéeme juddu. ki ci gën yéeme juddu. xam ne amul baay. xam ne amul baay. mooy Isa ibnu Maryam. mooy Isa ibnu Maryama. Iisa bnu Maryam. Iisa bnu Maryam. amul baay. amul baay. yaay la am. yaay la am. jigéen ko jur. jigéen a ko jur. yonent yàlla Muhammad. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jigéen a ko jur. jigéen ko jur. kon yéen jigéen ñi. kon yéen jigéen ñi. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. mun naa wax ne sax fay ngeen ngor yàlla. mun naa wax ne sax. fay ngeen ngor yàlla. ndax li ngeen ko fayee ngor. ndax li ngeen ko fayee ngor. tant boo dem. tant boo dem. jigéen ñaa fa man. jigéen ñaa fa man. lañ fay joxe. lañ fay joxe. ñoo koy joxe. ñoo koy joxe. ëppale góor ñi ci loolu ëppale góor ñi ci loolu. lañ fay togg. lañ fay togg. lañ fay dundee. lañ fay dundee jigéen ñoo koy taxawee. jigéen ñoo koy taxawee. fa tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiin. fa tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiin. ñu ngi leen ay gërëm. ñu ngi leen ay gërëm. ci seen bëgg. ci seen bëgg. ak bëgg-bëggalu. ak bëgg-bëggalu. ak seen xeñtu. ak seen xeñtu. jigéenu Sénégal ñu sonn lañu. jigéenu Sénégal ñu sonn lañu. ñu sonn sonn lañu. ñu sonn sonn lañu. duñu doylu ci diine. duñu doylu ci diine. waaye nag gàcce ngalaama waaye nag gàcce ngalaama ndax ndey xadijatu ndax ndey xadijatu mi nga xam ni mi nga xam ne moo recevoir moo recevoir yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad keroog ba mu jógee xaaru Hira ba mu jógee xaaru Hira yi ba mu jógee xaaru Hira ba mu jógee xaaru Hira moom yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad ca lox ga ca lox ga ca ñaq wa ca ñaq wa ca liw ba ca liw ba waaw ca ca ga تن قوى تن قوى تليوبا تليوبا ناري برينسيب لا بولي ناري برينسيب لا بولي بام غيسي جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام دا فا نق تيقب دا فا نق تيقب ليو بايلوخ ليو بايلوخ ايتام لولو كين موسوكو ديك لولو كين موسوكو غيس يالا ميل نونو يالا مو ميل نونو يالا مو ميل نونو يالا مو ميل نونو موتاخ يلنت بي موتاخ يلنت يالا مو بنان خديجة بنان خديجة زميلوني زميلوني وأتى أهله يقول مرارا زميلوني لأن قد الإغماء وأتى أهله يقول يقول مرارا يقول مرارا زملوني لينقد الإغماء لينقد الإغماء دكل نوا كرم يا دكل نوا كرم يا دي لوخ دي لوخ نان زملوني نان زملوني تندي خديجة تندي خديجة لي مو غيس لي مو غيس موي نياق واغي سوتيكو تي كوم نياق واغي سوتيكو تي كو يونت يالا محمد واي خديجة واي خديجة تو جيجن بو يالا ماي لا جيجن بو يالا ماي لا جيجن بو جافé لا جيجن بو جافé لا مو اندك ساغوم مو اندك ساغوم اندك دال اندك دال لول لول تبارك الله تبارك الله اصل الخالقين اصل xalqin ba mu toogee ba mu yàgg ba mu toogee ba mu yàgg moom Xadija moom Xadijatu xamul kii lan moo ko dal xamul waaw kii lan moo ko dal Khadija musul gis ku gis yonent. Khadija musul gis ku gis Jabrail. ku gis Jabrail. keroog la ko mos a gis. keroog la ko mos a gis. Khadija rayoo yaroohu ci këru diine. Khadija yaroohu ci këru diine. ci këru alal la yaroo. ci këru alal la yaroo. mais xam nga nu mu def. waaye xam nga nu mu def. lan moo ko xamal loolu. lan moo ko xamal loolu. lu ñu war a bàyyi xel la. lu ñu war a bàyyi xel la. mu toog ba mu yàgg rek. mu toog ba mu yàgg rek. mu tas musóoram. mu tas musóor gi. windeel windeel karawam. windeel karawam. ba yaram bi fees dal la karaw. ba yaram bi fees dal la karaw. mu xool yonent yàlla Muhammad. mu xool yonent yàlla Muhammad. yonent bi daal la calme. yonent bi daal la calme jàmm daal di dal daal di dal mel na dara dalatu ko mel ni dara dalatu ko mu commencé da wax ak moom correctement commencé da wax ak moom correctement lox ga arrêté lox ga arrêté na ñaq wa arrêté ñaq wa arrêté na mu daal di jëlaat musóor gi delloo ko ci bopp bi mu daal di jëlaat musóor gi delloo ci bopp bi moom day xadija moom day ba ko ca delloowee ba mu ko ca delloowee dix secondes rek dix secondes rek ñaq ba commencé sotteeku ñaq ba commencé ah, ak liw ba ak liw ba mu xam ne kon mu xam ne kon lii mbiram yàlla la lii mbiram yàlla la waaw kan moo ko wax xadija waaw kan moo wax loolu xadijatu ka waxoon ci alquran ne ka waxoon ci alquran ne wa awhaa rabbuka ila naxli wa awhaa rabbuka ila naxli ne yénki wal naa man yàlla yëmb ne yénki wal naa man yàlla yëmb xamal ko ni ñuy defaree lem xamal ko ñuy defaree lem muy defar lem muy defar lem kookaa yenkewal Khadija kookoo kon Khadija kon nañ wax ne mun nañ wax ne ba Mouhamed amee wax yu bu yonent moom it am na wax yu moom it am na wax yu ndax wax yu wax yu ab yonent ci la jëm ab yonent ci la waaye bu dee koo xam ne du yonent waaye bu dee koo xam ne du yonent kenn du ko tudde wax yu kenn du ko tuddee wax yu ilham lañ koy tuddee ilham lañ koy tuddee kon Khadija yàlla wax na ko Khadija yàlla wax yu ko bi li martabatiha bi nisbati li martabatiha comme rek toll rek ne ko tasal sa musoor ñu ne ko tasal sa musoor pour daal pour sa xel dal pour sa xel dal nga xam lii lan la nga la bi mu delloo musoor gi ba mu delloo musoor gi Mohamed dal Mohamed dal xam lu Xadija wax Mohamed xam lu na ko daf na ko askin askin dalal dalal bégal bégal lii nga àndal lii nga àndal yàllaay kese la yàllaay kese la te booba Xadija xamul yàlla Xadijatu xamul yàlla waaye daf ne Mohamed waaye daf ne Mohamed yaa ngi ànd ak yàlla yaa ngi ànd ak yàlla lii lii dal la dal la وهو كلام بمحمد نان بمحمد نان بارو دما نرا تروخ بارو دما نرا تروخ مبار دما نرا الكو بارو من مي دما نرا الكو بماي واخ واخام يوري يويا بماي واخ واخام يوري يويا خدي دم نكو خديجه دم نكو وهو كلام ما لا يحصيك دهرا وهو كلام ما لا يحصيك دهرا ما لا يحصيك دهرا ما لا يحصيك دهرا انت لي ديفي انت لي ديفي يو دال تيرال كتو غانغا يو دال تيرال تيرال كتو غانغا يالا دورو توخال مكو يالا دورو توخال مكو لي ام تير موي لي ام تير موي بو يالا بغلي خيل بي جام بو يالا بغلي xet bi jàmm bu yàlla bëggalee xeet teraanga bu yàlla bëggalee xeet wi teraanga bu yàlla bëggalee bi yërmande bu yàlla bëggalee xeet wi yërmande te jikko yi nga jikko woo jikko yi nga jikko woo doo torox mukk ndax yow ndax yow da ngay teral gan da ngay teral gan da nga ko fonk da nga fonk gan da nga fonk jaamu yàlla da nga yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla mënul la jot mënul la jot yàlla mënul la ko def jaamu yàlla mënul la ko da ngay fàggul da ngay fàggul miskin miskin da ngay yërëm da ngay yërëm miskin da ngay dimbale da ngay dimbale miskin da ngaa tabe da ngaa gore da ngaa bëri yërmande